xabaar bu tiis rusundi fi ñeel ab accident lu sorewul dara autoroute à péage bile di ab 4x4 bu këpp ci pegg ab camion ba ñaar ñàkk ci seen bakkan ñett jële ci ay gaañu gaañu mu doonoon nag benn famille rek bu doon gunge euh, seen doom bu jigéen foofee ca aéroport international Blaise Diagne ngir rek mu daal di tukki foofee ca France waaye daal dafa mujjee ñàkk bakkanam ci bile accident moom ak way juróom bu jigéen yeneen xale yu jigéen yu yamu àndaloon nag di rakk wala mag ci moom mi doon tukki euh, gaañu gaañu lu ñeel bi di xibaar naata dinañ ko toppandi ba indi ci yeneen leeral